julli googu boo ko defee sëriñ soy bu Mbàkke xamoon nañu ne des na la xaraamal ci saw yaram safara te boo ñaanee sa xaajo borom bi subhaanahu wa taala dina la ko defal mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu sëriñ soy bu Mbàkke page 141